leen jaajëfal di jégalu encore une fois ci ci ci kàddu yi quoi donc voilà en fait euh, damay def une petite video pour ñëw un indi quelques éclaircissements par rapport à la dernière vidéo que j'ai j'ai lancée mais aussi euh, def quelque précision quoi par rapport ak ni ma argumenté ak ni ma waxee quoi par rapport ak ni ma waxee si c'était à refaire noonu laa koy waxee quoi yaa ngi dégg li ma wax je le maintiens s'il a des gens de l'opposition qui ont été envoyés pour venir insulter Ousmane Sonko sur les réseaux sociaux bu ñu ko saagaa ñu saaga leen ba pare bloqué leen supprimer leen je le je je le dis et je le répète man loolu laa gëm ku ñëw nag pour teg dee débat ñu waxtaan ci Sénégal waxtaan ci nguur bi nguur bi fi nekk ni muy ni muy ni muy doxalee même waxtaan ci opposition bi ah amul problème même ñu waxtaan ci Ousmane ko ci Pastef ñu teg ko ci tekk ak tey ñu waxtaan ak tey boo ñëwee saaga nag ñu saaga la pare supprimer la bloqué la avancé. loolu moom moo ci nekk je le maintiens yaa ngi dégg mais aussi ñaan ñi ne dañuy yaakaar ne ñun bu ñu ñëwee peut-être wax wax bu dëgër yuuxu kërëb kërëb c'est parce que amuñu ay argument boobu dangeen ngeen comprendrewul yaa ngi dégg boobu da ngeen comprendrewul Sénégal même ku amul argument rek nguur gi sax mun nañ la may loo wax quoi ah pour forte ñoo xamante ni peut-être yàlla leen ñu am tuuti une capacité d'analyse boo xamante ni mun nañ teg dara ci table bi. bu ngeen déggee ñun ñu naan peut-être opposition bi dafa am ñoo xam ils font de l'opposition à Ousmane Sonko man jégg jëlale naa ay Idrissa Seck ay Khalifa Sall ay Karim Wade ñooñoo ñooñu ci système bi xam nga ñi ne ci système bi moom jéggi nañ leen ñooñu système bi ci système bi la ñu nekk ñooñu ci système bi la ñu bokk peut-être buñ koy wax amuñu leen jàppal on n'a rien contre eux et le combat jéggi na leen parce que ñoom ils ne sont plus acteurs xam nga nit ki mun nga bokk système système bi defal te yow nekkatoo acteur loolu moo dal ñoom Karim ñoom xalifa ñoom ñoom ñoom ñoom comment il s'appelle euh, ñoom euh, Idrissa Seck et consort mais y a pire mais am na ñoo xamante ils se disent bokkuñ ci système bi am na ñoo xamante dañu dénoncer système bi dama leen jox exemple bu ndaw vidéo bi du gudd du sori juste pour ngeen comprendre que ne ñun li ñuy wax am na fu ñu ko teg quoi c'est pas parce que dañuy ñëw yu wax wax ju dëgër que ñun li ñuy wax du ñu ko teg ci ay argument yu taxaw quoi ci lu leer dañuy jël juste benn exemple bu ndaw mooy le cas wala mën nañ sax jël deux voilà mais benn bi amul problème Bougane Gueye Dany la mais comprendre nañ bon peut-être dinañ ñëw ci wax boobu noonu beneen yoon mais dama bëgg gis ñu des ci kaaw juge Dème juge dem dafa démissionné par rapport à un système qui est par rapport un système judiciaire boo xam ne dafa ne même système là moom dafa démissionné parce que système boobu noonu dafa démissionné mu am benn démarche ak benn attitude bu mu am ba tax na sax moom bu ñu ko invité les journalistes ils tendance di ko laajte yow tout le monde s'attendait à ce que tu t'allies Sonko lors des élections yi nga xamante ni 2019 ce qui n'a pas été le cas pourquoi bon dina tëb tëb wax ba argumenté teeg ñun on est là dégg naa ko muy argumenté avec Maimouna Ndour Faye sur la 7TV comme quoi ñun on est pas là pour être président pour être machin pour être truc on est là pour apporter notre truc pour changer le, la façon de voir et pourtant à Thiès quand on t'a posé la question par rapport à la mairie t'as dit que c'est pour gagner pour être maire de Thiès pour des élections locales mais pour élection présidentielle t'as pas envie de participer pour être de un de le juge dem yow ñu pose les questions sur les quatre-vingt-quatorze milliards yow yow yaa ne c'est une affaire que je suis de près je te prends mot pour mot yow yaa ne c'est une affaire de près yow pour un juge boo xamante ne nii t'es pas profane comme ñun comprendre nga yow sa angle d'analyse moo gën a riche yow li en fait euh, ni ñu koy waxatee sa bagage intellectuel yi nga am pour analyser cette problématique là ci yow la gën a ëppee quoi. yaa ngi dégg yow léegi yow yaa ngi lijjanti ne yow lenn moo la métti li la gën a métti ci mbiru 94 milliards yi mooy kii dénoncé mooy Ousmane Sonko li taxoon mu bëggoon a am intérêt waxoo li tax mu waxul sax li tax mu am intérêt dafa ne li taxoon muy jéem a wut wala mu bëggoon am intérêt ci loolu noonu donte nee nañ daf ci bëggoon am intérêt génnaat. te ni ko Ousmane Sonko waxee leer na moom dañoo ñëw ci moom proposé ko bi mu ci biir mu xam ne lii étikab mayu ko ko mais moom bugg koo gisee foofu li mu ko gisee mooy nee na lenn moo ko métti ci affaire moo ko ci gën a métti ci affaire 94 milliards mooy ki dénoncé muy Ousmane Sonko bu dénoncé wul woon bii day romb comme ni fi yeneen milliers et des milliers de scandales fonciers rombee mu ne li ko ci gën a métti mooy lim si doon ji lim nga xamante ni jàppoon na ne mën na si am dara donte dafa rétracté wu looloo ko ci gën metti métti donc le juge dem yow en tant que juge en tant que patriote nee nga en tant que koo xamante nii bëgg nga senegal dem ba ne yow da nga démissionné d'une justice qui a démissionné et nañ dem ba ci kanam rek toutes les casquettes vont tomber en fait yaa ngi dégg nga ne léegi yow lettre de confort bi Amadou Ba signé. pour que Tahirou Sarr ak i ñooñam mën na jël kayit boobu noonu dem ci banque bu leen neex ñu fëgg ko ci taabal bi xaalis bu leen neex ñu génnee ko <laughs> yow loolu méttiwu la looloo indi décaissement wu 46 milliards yi Ousmane ko di wax l'air de confort boobu noonu parce que moom mooy permettre banque bi mu jox la pour xam ne yow mii de état moo la yoreel xaalis état nag ku mu yoreel xaalis mais dafa leer que banque boo dem leb ñu lebal la donc parce que banque bi déjà dafay am pourcentage ci ci ci lettre de confort bu nga am am na benn pourcentage boo xam daf ci am direct à plus forte mu am garantie wu état waxuma la sax garantie wu état mais banque tey man su ma amoon kër goo xamante ni day jar un milliard ma yor kayit yi mu leer naññ que ni kayit yi am na banque bi def vérification xam ne kayit bi am na am naa titre foncier lii maa ko moom terrain bi un milliard lay jar mais su ma ko lebee cinq cent millions daf ma koy lebal su ba dina ma garantie kër gi. noonu la demee yow waxoo ci loolu yow juge dem yow juge dem waxoo ci lettre de eh, yow waxoo juge waxoo ci acte d'acquiescement yi Mamour Diaw la signé acte d'acquiescement acte d'acquiescement yoo xamante ñaari acte d'acquiescement la yoo xamante ni déjà concerné wul sax les cent vingt cinq hectares yi nga xamante ni famille Ndoye biñ ne dañ ko exproprier expropriation boo xam mosul am parce que homologation mosul am venant de la justice yow nga ne justice nga jógee. nga ne yow loolu métti la le fait que Mamour Diallo signé ñaari ak d'acquiescement yi et plus grave encore Tahirou Sarr créance yi mu jënd ci famille boo xamante ni mosuñu ko expro exproprié amul benn décret bu génn que ne wala benn homologation bu génn que ne famille Ndoye expro état bi exproprié na ko déjà intermédiaire bi ngay wax Ousmane Sonko loolu bu doon intermédiaire am na Tahirou Sarr moo ko def diggante diggante état bi ak famille bi Tahirou Sarr moo dugg ci diggante bi pour jël créance donte loolu noonu c'est parce que homologation mosul am. décret d'expropriation mosul am par rapport à la famille Ndoye nga ne yow loolu méttiwu la mais li la métti mooy Ousmane moo tax ma ne ñii c'est ils sont de mauvaise fois ils sont de mauvaise fois te ñun patriote on a compris bés bu ngeen paree pour débattre ñu wax ci ñu wax a xel ak xalaat mais ku saaga suñu leader saaga Pastef ñu saaga la supprimer la bloquer la boo bëggee waxtaan nag indi ay argument teg ñu indi ay argument teg c'est juste sama gars yi pour ngeen comprendre que ni des fois bu ñu génnee wax du pour wax wax yu kese wala c'est pas parce que amuñu ay argument dañ ci toog opposant yi dafa am opposant yoo xam dañuy ils font de l'opposition à Ousmane Sonko ñoom ñëpp nag. voilà même Mamadou Diop Decroix bi génn di wax ci affaire impôt yooyu noonu di ñu indil ay texte di lire yu kenn xamul c'est-à-dire Sénégal texte moo ñu sonal y a y a les textes y une situation y a un contexte socio-économique boo xamante ne nii mënuñu ko mettre à l'écart de toute analyse objective c'est pas possible les gars il pouvait être plus clair mais il veut pas aller dans le sens de Ousmane Sonko à 100 pour cent il faut mu jege ko comme parce que pour Ousmane comme Ousmane Sonko moo nekk ci dëgg bu ko soree dëgg day jege fen moo tax on a compris bëgguma vidéo bi gudd loolu rek laa indi woon pour leeral que ne je persiste et je signe sama wax ji maa tey mu dëgër que ne ku saaga Ousmane Sonko nga saaga passé fa la ñu patriote ci réseaux yi ñu saaga la ba pare bloqué la supprimer la ku ñëw nag teg tey nga ñëw pour ñu waxtaan ñu débattre ñu teg affaire yi ci yoon ñu waxtaan ak yow ci xel ak ci xam-xam maa ngi di gërëm di leen ziar di leen jaajëfal le combat continue les gars never give up 2024 Ousmane Sonko président de la République du Sénégal incha allah ci kàttanu yàlla amul bàyyi na xeex bi gën a teng incha allah jaa ngeen taw tawfeex